dox ci diggante ordinateur ak Bruno Adama ne takk der bee ko dóor bu doon man la bu yàgg tontu na ma <laughs> jërëjëf ordinateur ak Bruno ndaysaan sama xel dem Messi ndaysaan ordinateur ikiri boo ñaa la nekk mu ngi nekk ikiri barñi lu xew nee na ko fëggal suuf bi arbitre bi sifflé waat na ordinateur Bruno Bruno moo la woon ginnaaw ordinateur nga jàkkaar lool bëre dóor la ordinateur mbëru simple la su doon maa Bruno damay daas samay loxo ba mu ñëw mën a dóor mën a bëre ordinateur ordinateur Bruno ordinateur Bruno Bruno door na cokaas na dooraat na Bruno dooraat na war woon jàppante ordi jàpp na ndaysaan ordi jàpp na léegi mu léegi mu jeex ordinateur Bruno luy xew lan mooy xew ordinateur ngay fay wa ordinateur door ci suuf sikki na da daan da daan da koy na ko ba ci door na ko ci suuf jeex na jeex na oh! Boy Niang numéro 2 daw na kott ko ordinateur daan na ordinateur daan na ordinateur daan ordinateur daan na ordinateur daan na ordinateur daan na Adama